Génération lu ma mën a wax moo di chauffeur yi nañ daw dàkk quoi nañ daw dànk ñu euh, def ndànk parce que yoon bi dafa kii daal dafa yàqu. waaw yoon bi moom macha allah baaxul wax dëgg yàlla dañ ko war a defaraat mais nañ def ndànk daal moo gën a wóor. il faut ñu am conscience quoi. boo boo boo dawalee nga xool fu ñuy dem quoi. loolu mooy après il faut am prudence quoi. da ngeen daw ndàngaa nga egg si ndànk quoi loolu mooy problème quoi man loolu laa am comme conseil mu jox si pro eh, si chauffeur yi waaw après nga am nga am kii conscience quoi nga xool fu ñuy dem. lu ñuy mitit lu la euh, mitit bi ñun ñëpp moo ko bokk dañuy famille ñooña ñàkk seen bakkan ñu leen di jaal jaal bu gën di si jaal yi. Euh, monde du transport aussi ñu leen di jaal jaal bu gën di si jaal bi su ma amee appel bu may lancé rek su may mbokku chauffeur. ah nañu xam ni que Sénégal dafa nay yoon mais yoon yi dañuy xat nañu vigilance lu ñuy def xaw ma nag lu waral accident bi parce que du ma si sori mais suñu vigilance su lu def rek je pense que lépp dina jaar yoon. ah dinaa lancer aussi appel à l'État que ñoom dañuy defar ay yoon ñu ngi góorgóorlu mais yoon yi nañ koy baliser nañuy baliser yoon yi bu ko defee su ma baliser mooy tableau de présignalisation yoo xam ne chauffeur bi moom lay waxal ba muy yegg yooyu war nañ ko di respecté di koy def ci tali bi suñ demee si biir dëkk yi dañuy gis ay ay ay tableau mais buñu génnee si biir dëkk yi rek do gis tableau do gis limitation de vitesse do gis luy signaler ni ki nag baa ngi fii ñëw doo gis luy signaler ni hôpital amna do gis luy signaler ni école amna donc yooyu état na gor gorlu je ne parle même pas de l'accident parce que accident mom xawma ma nu mu accident woo mais damay lancer appel à l'État que nay baliser tali comme suñu tali dañuy xat nañ koy baliser pour cheveux dicté Le tableau nous avons wax ak nous avons que tableau vraiment y a problème donc ce que ñaax les autres, identiques nous dit Génération FM. the radio.